waaw damay doog a yeewu <laughs> mënu ma woon du mënu woon bougé ndax bés bi hmm. ndax li hmm. di ñu ñi ma fi fekk ñëpp hmm. di nuyu tamit euh, suma frère yi nekk ci salle bi yëpp ak mbër fi nekk di nuyu suma frère Mor di la internet yépp di nuyu waa Pikine yëpp bés bi nag Diaz yaakaar naa ne yaa ñu gën a xam enjeu yi Pikine en miniature tey ñoo war a bëri jour si tey juróom mi mbëru Pikine war fa daje tey Pikine tey war nañ ñëpp war a génn tey war fessel feesal stade bi sarti bi xawna ser seer jazz ban taxaway lañ ci wara am ñom ak Mortala rawatina tay doomu Pikine yi nga xamanteni tay seeni doom ñoy bëri. wa kérok rek euh, open press su Zambala bi rek. am na lu fa wane. wa parce que ñaari ñaga ñay la fa hmm yépp ay asiko. dem ci mhm. open press su. Zambala hmm tay mbaaw yépp mbaaw mhm. yépp waaw ci xamna ni mbaaw yépp ñu ngi tamit si ginnaawu sa ko waaw di wax wa Pikine. Mhm. ku melni Khadim jaay maire Yacine Doucouré. tey ku ma indi mu ñu jàppale ko dama bëgg ñu jàppaleel ma suma rakk ji Jacob Malaw Seyras bu nekkee Zambala hmm. loolu féetee na boor féetee na boor nañ ko ba mu féetee boor hmm. côté Zambala hmm. di ko wax tamit ñu jàppale waale ma ordinateur di wax tamit su doomu Pikine yi nga xamante ne tey ñu ngi si diaspora bi ku mel ni Dias bu AS Pikine Pa Idi sama doomu ndey ñëpp xam nañu ni mu mel ak amaa Balde dañoo bëgg combat bi yi dafa xaw a cher waxuñu ñu jël xaalis jox ko Jacob mais dama bëgg ñu jël ay jëndal leen ko ay bolok supporters yi dem. Mhm. maa ngi koy wax képp bépp doomu pikin bu may seetaan nekk ne doomu Pikine nga ne drapeau Pikine nga maa ngi lay ñaan nga jàppaleel ma Jacob bi. Mhm. lépp ñu ngi koy teg ci loxo suñu frère Mor Talla. Mhm. waaw Mor bi man si ginnaawam laa nekk. waaw man ni ñu koy gis nii si ginnaawam laa nekk. waaw parce que mu ngi def ay mu ngi def lu am solo biir Pikine. waaw. day suñu gox bi fi mu toll nii dañoo war a wax alhamdulilahi rabbil alamin hmm. parce que lépp changé na hmm. ñëpp ñu ngi si jàmm hmm. te lii lépp la ñu bëggoon waaw te xam naa ni six points xaw ma xaw ma quatorze dinañ ko am maalaw seeraas dina daan si kàttanu yàlla sakob dina daan ñun xam nañu bébé Saloum bébé Saloum ah. waaw waaw man xam naa ko bu baax loo xam ci bébé Saloum jazz bébé su ma néegu yaay la doon fanaan sa néegu yaay fan yaay caaro yi su may suñu foofu la yeewoo nii man fa laay yeewoo sama yaay mu ngi fa sama yaay mu ngi jaaro yi mu ngi fa sama doom mu ngi fa Aliou Seras mu ngi fa mané mako ma koy wax rek amna luma dégg nak sama nop né hmm. ki sama rak la hmm. yaa ngi may dégg ska ka ah. bu doon bëre mbeur bo xamante ne ñoo bokk ndey ak bay dëkk Pikine dëkk jaaro yi te dëkkoo Pikine hmm. kii lay faral dama bëgg mu dégg ko motax ma jël tiset bu mag defal ko seex sama dom fofu tissetu Jacob bu seer la ko defal tiset bobu bébé salam bu ko gisee da ko wara nangu nan la koy nangu du ko nangu la sama yaay dam koy bëgg wax ko mu dégg ko waaw damaa bëgg mu dégg ko da war a nangu pentir ko seex sama doom ñu ah. tegee ko nële ne xam ne ni kii baayam la dégg nga ah. sama doom yaroo loolu laay moo tax ma profité gaaw ñëw hmm. dégg nga ni ma ko defaloon contre ama solol sama doom tisatu ama noonu laa ko defaatee tisat bu seer laa jëndal seer Jacob si ginnaaw Jacob si kanam mu koy sol di ko doxantuwaale ci biir koñ bi boobu te dara du ci xew ah, kii papam la am na droit foral ko hmm. jaru ñu koy dàq ay entraînement ak ñu kenn xamul hmm. dégg nga foofu la dëkk foofu la juddoo foofu la màggee maamam fa la dëkk fa la am kër ni ma amee ni ma amee fii kër sama yaay foofu la amee kër mhm. li làmb la dafay jeex mhm. Aliou Seras ñoo bokk ndey ak baay mhm. combat bi moo tax mu quitté nekk entraîneur foofu la woon écrit Jimbori combat Jacob bii moo tax mu quitté fa ñu écarté ko ñu ko dàq ko foofu la dëkk combat bii moo tax combat Jacob bii coow bu mag la fa am sa kii rakam la rakam la mais lamb la rek Aliou Seras day toog presque at du gis Jacob bii mu ngi nii. Mhm. du ma bàyyi ma fen billaahi mhm. wallaahi watalaay. Mhm. moo tax combat bi lu ma ci mën dinaa ko ci def pour que am ndam bëri billaahi wal kitaab. kon combat bi règlement de compte la. lu ma ci lu ma ci dinaa ko def. lu leer laa lay wax. Aliou su ma rakk kon lan lañ mën a xaarandi Diaz def ci combat bi. lépp loo doon gis ci ma doon taxawaaye Pikine. tey dinaa ko def ci combat bi surtout bu maalaw bi. surtout Malaw parce que maalo tey Pikine da koo war a faj. Mhm. ku nekk taxaw la ku xool ni muy taxawoo Ama rek. kon mhm. Pikine waa képp koo xam ne da ngaa bëgg Ama rek war nga mhm. jàppale. Malaw Seras. dëgg la ngir jëmee Ama. gunge ko pour mu am ndam. dëgg la. waaw maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla suturaal may ko ndam. parce que nit ku baax la. waaw di woo waa Pikine yëpp. nañ ñëw teg kii loxo. jàppale ko ci billet yi ku mel ni Timbo. ah Thierno Ndom Modou Gueye sama xarit. xam nga maa ngi koy Isaaka Diop. waa Pikine yëpp Cheikh Lobaat Fall maa ngi lay woo nga ñëw jàppale ko. bu baax. xam nga Pape Abdou Cissé. Philippe Kenny. képp ku si sama nit maa ngi lay ñaan gaaw nga ñëw contacter Jacob nga jàppale ko ci ay billets jàppale ko bu baax a baax a baax yàlla may ko ndam mortala aca saani si ñaari kàddu jégal tuuti ni taxaw nañ lii mhm. di wax ne Jacob comme niñ koy waxee combat déclenché la mhm. moom xam na ko xam na li nga xamante ni enjeu wu combat bi la Bébé Saloum nekk na mbër boo xamante ni wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee ginnaawam am na barke. Mhm. yàlla na ko Jacob daan ba nga xamante ni fi mu bëgg a am accès dina fa parce que avenir u Pikine gars mhm. Mhm. comme ni ñu koy waxee relève bi ñun suñu xel dal na quoi. waaw relève bi suñu xel dal na ci parce que tey boo gisee benn Jacob gis benn Pokola gis benn Prince gis benn. benn benn benn soq de. benn benn benn. tas yaakaar benn balde. benn booy balde tas yaakaar waaw. boo limee sax da ngay juum da ngay am. da ngay Batista 2 Batista 2 Pikine kay am na am na ay relève moom. da ngay da ngay da ngay am njaga jóob. Mhm, xam ne da ngay am xel mu dal. ordinateur léegi li si des mooy ñoom ñu liggéey rek xam ne liggéey bi nag mën nga ci wéet. waaw ci entraînement. te entraînement faw nga wéet ci pour nga mën a liggéey la sérieux. dëgg la. léegi nag comme bisi bu desee nii lu dul maanaam ñun ñu war a woote su mhm. grand Pape Sarr dafa baax rek moom bu waxee sax amaana mënuñu wax mhm. parce que wax dëgg yàlla gis nga sukk du teesee um dem mhm. li mu ñun mënuñu ko Pape Sarr fépp lay dem Pape Sarr day fëgg bunt yëpp pour jàppale jeunesse su Pikine bi gis nga gars comme ni ñu autorité yi muy le premier magistrat de la ville Abdoulaye Timbo. Mhm. budget sportif bi nga xamante dañ koy voté. ci mhm. mairie bi. Mhm. nañ ci jàppale ndaw ñi. tey jii ñoom Eumeu Sène ñoom Ama ñoom Boy ñaa tey jii nii àgg nañ au sommet. mais ñii àggaguñu au sommet. ñoom ñëpp dañ leen war a kii di nuyu aussi ki nga xamante ne wax dëgg yàlla muy Baboy gis nañ taxawaayam aussi. waaw na gis nañ taxawaayam aussi. mais comme niñ koy wax saa di woo Modou Gueye président AS Pikine muy maire Thiaroye ci Kaw di woo Isaka Diop ci di woo tey jii nii comme ni ñu koy waxee waa diaspora bi diaspora bi ñu ngi leen di woo muy ñoom jazz idi idi idi idi idi tamit comme ni ko Pape Sarr waxee mm, mu ne koo xamante ne AS Pikine la commencé di jàppale sax avant muy jàppale mbër di woo comité supporter AS Pikine nag lu tax ma ne mën naa woo comité supporter AS Pikine dama nekkoon président au supporter mm-hmm. ma xam li nekk yàlla dogal sama rakk ñëw nekk muy Tafa Seck mm-hmm. di wax ne supporteru Pikine yi ñëw leen ngeen jàppale mbëru Pikine yi laay wax mbëru Pikine yi mooy mm-hmm. maanaam tey bis ba dañ fa am ay mbëri fay bëri muy maalaw di di di ordinateur di Zambala di di Sokku di Zakob kon tey jii ni ñun kenn waruñoo ëpp ci terrain bi couleur vert rouge bi dafa war a saf sàpp ci ci ci ci stade bi parce que suñu gox la dañuy jéegi ñun gaa yi comme ni ñuy fay transport ñun fay ñu transport ñun dañuy dox dagg billet dugg léegi comme li ñu soxla ay autorités yi mooy ñu jàppale ndaw ñi hmm. xam nga ñun ñi duñ naan ñu laaj billet mais dañu am ay xale yoo xamante ne génération 2000 bi ba jëm ci kaw dañuy soxla ñi la ñuy jëndal ay billets yi te comme ni niñ koy waxee boo gisee tey jii nii dañ leen war a jëndal ay billets waruñu ñëw ba ci buntu stade bi dafa toog mhm. parce que tey jii nii autorité yi loolu rek la loisir loolu moo tax ñu naan loisir mhm. nga jënd ay billets jox ko booy ñu ñëw nekk dugg stade mën a toog benn place leneen lu ñuy wax mooy tey jii nii kii di booy ñaa kii di Ama kii di Eumeu Sène mhm. ñoom lamb ji ku ci nekk ci sa poosu bopp war nga cee jënd dix blogu ticket ñëw may ko mbëri ciy bëri est-ce que comprendre nga ñoom ñooy lañ naan bay ci say weewu tànk mhm. Mhm. ñoom lamb yi nii dañ ci war a jënd ay bloc maye ko mhm. bu ñu mënta jënd ay billet maye ko ci seen ñu dem ci seeni nit sey weñaar seeni loxo ñu jàppale ñi nga xamante ne ñoo ciy bëre te ñu xam ne pigin nag comme niñ koy waxee mooy gox bi nga dañoo yo dañu pour gungee mbër dafa yomb ci ñoom mooy maanaam dinañ sangu ba set dinañ ñëw sa buntu kër 10 heures ba heure lamb ñuy dagg seen billet dugg supporter la yow mi yow mi nga def fulla ak fayda yàlla nag moo am ndam mais boo defee fulla ak fayda yàlla dalay may ndam parce que Pikine bu ñu àndee nekk benn lu ñu uti day yomb loolu nañ ci conscient grand pape comme ni ñu koy waxee saa su ne rek waaw mouvement doomu Pikine di nekk Paris nga xamante ne Idi Thiam mi ngi ci moom tamit ñu ngi leen ciy woo parce que dafa nekk loo xamante ne dañuy jàpp ci combat bu baax a baax a baax a baax a baax mais man ñu may gën a woowaat mooy comme ni ko Pape Sarr waxee muy ñi nga xamante ne ñooy acteur yi nga xam ne ñu ngi biir Pikine te mën a jàpp te yàlla tax jàpp te yàlla tax boo koy def defaloo ko Mortal defaloo ko Pape Sarr defaloo ko Oumar Thiam defaloo ko defaloo ko Baboy defaloo ko Jacob yow sa pikinité moo tax nga koy def te mbir mi comme ñu koy waxee fi ñuy jaamoo yàlla dafa bari te bi ci suñu borom di nangu yàllaa ko xam kenn xamu ko parce que xale bi ngay jox billet ni mu ci amee mbégte rek suñu borom moo xam dala ciy bindal wii wala non te yaakaar nañ ku def lu baax wii lañ la war a bindal comme niñ koy waxee saa su ne di wax naa Pikine nañ takku nekk benn gunge suñuy mbër Jacob nag xam na lu koy xaar comme ni ñu koy waxee lu ñu naan affaire bi moom amul secret quoi liggéey la seul le travail paye te comme ñu koy waxee saa su ne yàlla nañu leen yàlla may bépp mbër bu dëkk Pikine ci jour boobu yàlla na leen yàlla may ndam merci beaucoup